cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñi bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ñaar ñu am solo bokkoon ci taalibe yi sëriñ Tuubaa yi àndoon ak moom muy sëriñ Mor Khady si ak sëriñ Malick Bassine si li may faral di wax rek mag ñi saa bu ñu àndee seeni wax rek ak seeni melo liñ ci jublu mooy ñu roy leen ndax ñoom eh, àndoon nañ ak Cheikhul Xadim ba amoon ngërëmam te ngërëmul sëñ Tuubaa mooy ngërëmul suñu borom tabaaraka taala te ñun it bëgg googu rek lañ am sëriñ Mor Khady si ak sëriñ Malick Basin si ñu bari woon ay xikma lañ te ñu amoon melowu jéggi dayo lañ ba sëñ waxoon na leen na seen melo wi ak seen ànd bi ak seen bennoo gi bu ngeen jiitoon alxuraan dana leen nettali faaw alxuraan dana leen tudd ndax ñaar ñoo xam ne nii kat mag ji moo jàngal rakk ji alxuraan ba mokkal nekk ko ci seen wayjur rakk ji dem jàngi xam-xam ba géeju ñëw jàngal ko kii moo jàngal alxuraan rakk ji rakk ji jàngal xam-xam mag ji ñu déggoo woon déggoo gu toll ni lu kii wax wala lu mu junj ko laajee ka ci des dana la ko leeral ku ci masaana am taalibe tërbiya ba war koo wàccee faaw nga yebal ko ci ka des ba kooku itam gërëm ko mu doog a dem ci ay bokkam euh, sëriñ Mor Khary Sy moom ay waxam da ko daan tënk lu baree bare waaye sëriñ Malick lañ ko daan laaj mu koy tinki sëriñ Mor Khary Sy daf daan wax ne yoonu murid de ñaari raa rek a fi nekk raa ak raa buñ ko laajee sëriñ Malick Bassine mu ne lim jublu mooy roy ak romb roy ak romb lépp loo gis nit di ko def tam tege ci xam-xamu sharia bu leer naññ tege ci luñ xam roy ko saa boo àggee ci nag loo xamut nga gis nit di ko def bu boobaa rombal moo tax sëriñ Mor Xarit si daana wax ne bul roy boroomuk may bul roy boroomuk moy ñu ne ko lu tax mu ne boo royee boroomuk may mu feey nga diig boo royee boroomuk mooy lu ko dal dal la te lépp loo gis nit di ko def mu jaaxal la benn mu amuk may di ko def walla muy moy di ko def sëriñ Malick Ba si daana wax ne roy ak toppandoo sax bokkuñu dal ne roy mooy gis kuy dawal wata wala kuy fee ci géej nga laaj na mu def ba man li ñu ne la moom kat da ko jànge woon fee la jaar jaar fee ñu jàngal ko ko mu ko yëwén nga jaari fam jaar loolu mooy roy kon roy lu baax baax na waaye faaw nga jaar fa waaj a jaar mu ne toppandoo nag mooy gis koy fee ci géej rek nga ne ah diw de ëpp ma sutu ma daal di sóobu te jàngoo nee na dig ngay def faaw da lab seen xam yi yëpp nag boo ko dajalee dafay dellu ci xam-xamu shariha ak xaqiqa ndax shariha ak xaqiqa day ñaari xam-xam yu jege waaye dañoo wuutee lool dañoo wuute eh, ndax sharixa moom day wax ne laajal laaj ma lépp lépp laaj ma ko fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun xaqiqa di wax ne bu ma laaj dara fa ini tabaxtane fala tasalni an shay'in hatta uxrija laka minhu dikra ci la doxoon ci diggante yonent yàlla Muusa alayhi ak jaamu suñu borom boobee ñuy wax xadir kon darañ ci dellusiwaat àggale ko ci roy ak romb incha allahu muy xam-xamu shariha ak xam-xamu xaqiqa ñoo ngi soññaar sunu bopp di soññi mbokki taalibe yëpp ci liggéeyu waa daara xikmatul yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di waxaatit ne ñi nga xam ne ni am nañu carte membre eh, am numéro